di ko may oustaz Modou Fall mii nga xamante ni ndaw la pattul laggiwul Aziz Ndiaye fàttalikul ni am nga rakk boo bokkal benn baay bu tudd Koura njaay yéen a bokk benn baay mu ngi fee ca jàmm gën ci suufu pont bi. daa mel ni day ah. sama réseau bi day daw. gars yi on s'apporte may dégg. waaw man mu yaa ngi coupé foofu mais continue maa ngi lay dégg waaw. ok jàll léegi dama ne. Aziz bu demee bay maye terrain bu 15 millions pour kii nga xamante ni pattul laggiwul gumbawul dara dalu ko mën na dem liggéey na fàttali ko am na rakk bu mu bokkal benn baay tudd Koura Ndiaye mu ngi jàmm gën la may wax waa jàmm gën mën nañ ma doon seede démb am na sax ñu ma contacté mais loolu c'est pas important mais dama ne Koura Ndiaye fi mu dëkk Descos dafa ñëw pour daaneel kër ga parce que kër gi wóoratul kër gi wóoratul dal bi wóoratul beneen bi ci tegu moom mu ngi ci suuf pont bi teg ay madd ay fruits ay banaana ak i pom loolu la fay jaay te kenn ki nga xamante ni mooy taxaw ne multimilliardaire la dajale ay nit jël ay nag di rey di saraxe jël leneen ak leneen di kii am mbokk boo xam di nit nag bu la nee diw baax na na fekk mbokk yaa ko wax am koo xamante ni sa mbokk bopp la xas la saaga la si sa jëmm nga bàyyi sa rakk ci suufu pont bi muy jaay ay fruit loolu wax dëgg fa yàlla rafetul te du lu xamante ni image bu nice la beneen bi ci tegu nag mooy Aziz Ndiaye kii oustaz Modou Fall mii munul muusaka waane ba détourné gàmmu gi munul muusaka waane. ba yàq léegi xaaral may nga commentaire si lii nee góor boo toogee ñu ne ñaata jabar nga am nga ne benn loolu gàcce la xoolal déglul. déglul de déglul ñu am benn jabar. na leen yàlla dimbali balaa déwén ñu am ñaar. que deux femmes war naa rus ñu koy xool ni ko ñaata soxna nga am na kan man <laughs> benn. déggal lii lii la nekk. atte leen ñu ba léegi de tooñu ñu ko de. ban téere ñu ne góor. war nga rus ñu ne ñaata jabar nga am nga ne benn kon loolu mooy xas na góor benn jabar yépp ci àdduna bi. effectivement déjà sa dafa xasaale ki nga xamante ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que avant muy takk ay soxna maanaam avant muy am yeneen soxna fekk na soxna Xadija mu génn àdduna parce que ci misaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn soxna la amoon muy Xadija. moom la nekkaloon ba Xadija génnee àdduna nag ci la awtaate yeneen soxna et que tey bu ñu xoolee nu ñu tënkee ci euh, góor na nga am ay soxna même boo amee nga mën ko sa doole mën ko def sax bul ko def yàlla dafa la tegal critère tey nam nañ góor muy am benn ñaar ñett ba ñeent su nekkee benn bi mu yor mënul yem ci moom te yem ci moom bi mooy tey bu dafa am ko ñoo xamante ne maanaam njaaloo dafa leen di yomb ñooñu lañ daganal tey ñu am benn ñaar ñett pour éviter leen lu ñuy uti ji ci biti ñu mën ko di ko takk di ko indi ci seen kër yi loolu mooy histoire góor na am ñeenti jabar te ñeenti yooyu yàlla daf daf ci retourné tegal ñu ci ay critères wala ci góor ñu mu tegal leen ay critères ne la nag yemale leen. maanaam boo fekkee ne da nga am benn mënoo ci yem nga jël ñaar mënoo ci yem nga jël ñett mënoo ci yem ba ñeenteel bi nga tëjee ko fa yemale leen yemale bi mooy lan tey kii boo ko jëndalee benn oto da jëndal kii benn oto. et déjà moom avec ces arguments il est en di def benn divergence ci këru jàmbur. il est en train de motiver en fait à la population ak jamono bi nu mu métti nii tey jii ñu def na ko sudul noonu Oustaz Modou Fall ragalal yàlla. yàlla nag alquraanam bi lim ci wax dafa leer naññ nit ki nag c'est pas question que tey mën nga baqara ba naas gis nga am na ñu fi mën baqara ba naas te xamuñu lu yàlla wax te loolu moo dal allahu ahlam nag man nag dama lay ñaan rek nga dem xoolaat bu baax li alquran bi wax ak lan la aaya bi wàccee ci loolu noonu. xam nga xam nga mooy critères yi wane nag ñii du ñaay ustaaz benn gi nii ma ne góor war nga rus ñu ne ñaata jabar nga am nga ni benn. kon góor yi am benn jabar yëpp tar war na war nañu rus ana rusel foofu soit la benn moo la doy benn la neex deewal ci benn parce que c'est pas forcé pour nga am ñeent dañ la ne bokk ko mënee ak boo ko bëggee mais naka la góor di demee am ñeent jabar mu xëy du jox sax jabar bi dépense loolu taxul ñu wax wutal ñeent donc ñii pour vous dire dañuy naan yenn ndaw yi ñooy yàq société bi mais ñuy yàq société bee ngi mii parce que dem na di ñu koy naan ay ku mu ñëw këram da ngay wutal wujju patati patata mu jël loolu bëgg si foo mais jouru gàmmu comédie amu fa lii du place jouru gàmmu ay ku am benn jabar yàlla demeen nga am ñaar eh, du place jouru gàmmu ku bëgg am ñaar dañ ko wuti bu la les moyens buñ fa nekkee kali dooguma la kali soxna aawo diñ ci dimbali nit ab aawo diñ ci dimbali nit mais ñaareel ku koy takk kenn dula la dimbali mooy da nga koy seet ba man ko def ko. déglul déglul. góor war naa rus koy xool ni ko ñaata soxna nga am naan kan man <laughs> benn. <laughs> gis nga bàyyi ni leeree. ñaari soxna dafa baax ne ko ñëpp wuti man nag maa ngi leen di jox rendez-vous sama deuxième femme après gàmmu ñu am benn jabar yal na leen yàlla di dégg nga de maa leen di jox rendez sama deuxième femme après gàmmu jour gàmmu la ñuy waxtaanee ndoxaan bi ci guddi yonent bi mais uye la maal doo mën a gis la maal kay góor bu am benn jabar gàcce la gisoo la maal foofu ñaata jabar nga am benn jabar laa am danga war a rus pour lan muy rus nga ne wéyal maal loolu c'est pas grave ñaata sénégalais ñoo am benn jabar léegi mu ne góor yooyu dañu war a rus vexé lu tax nga bloqué ko yow sa bopp boo defee lu dul yoon sax ñu bloqué ko ñu bloqué la fii moom reewande moom bisimilah colonel eggali li nga doon wax. très bien merci beaucoup léegi man dafa dama ne. gars yi bu leen détourner débat bi bu leen koy yóbbu fi mu yeggut fu mu yegg dafa de dafa di ci gàmm la ñu nekk te réponse yi nag jot nañu réponse yëpp réponse yi même la maam Ndiaye Savon génn na lan la répondre man maa tey ku amoon li ma am sol ko ku amoon li ma am nangam oustaz Modou Fall ba mu génnee aussi moom it maa tey la fajee mbiram kon doon na loo xam te xëy na sax ñoom dañoo déggoo sax ci nan lañu war a tontoo nit ñi léegi dañoo ne dañoo gis bâche bi kër Aziz Ndiaye Aziz ne gan yi fiy ñëw dañ leen di filtre nekkul képp koo xamante ni dangaa ñëw yor sa saak wala sa mbuus rek ne dangaa gàmmu si ñu ubbil la bunt yi nga dugg parce que ñii gàmmu ak ñii raas dem bokkuñu par mesure de prudence dañuy dañuy sécuriser kër gi moo tax ñuy filtrer léegi nag fu ñu dem ba def tente bâche bi nga xamante ni guddi yenent bi lañ fay waxtaane moom la ñuy màggal dañuy gàmm léegi ci biir tente boobu ñun ñu jàppoon ni dinañ ko organiser de telle sorte Aziz Ndiaye mi nga xamante ni moo initié mbir mi sax soxnaam day dem toogi place su jigéen ñi góor ñi am place bi nga xamante ni ñoom ñoo fay ne jigéen ñi am place yi fay ne ñu organiser ko de telle sorte aussi ñu mën a taaral bis bi dellu ci li tax ñu ñëw foofu daje fa muy gàmmu kenn kuy ñëw na nga fexe ba na nga yiw te xam ni li ñu fi indi du soirée du xawaare du dafante du lenn loo xamante ni puukare la ñu gis ñoo xamante ni ay nit ñu xeebu nit ñu tekkiwul dara ay baadoo yoo xamante ni dañoo xëy am am bett leen ñu bew taxaw di yuuxul di tëbaka dal sol lu leen neex paccal seeni ween takk seeni greffage muy wàcc ba seen xot taat teg seen faux daf pose ongul postil ñëw jàkkarloo ak ñi nga xamante ni ñii la ñuy woowee ay oustaz di yëkkati ay alal di leen ko jox ne jekkul woon ba ñu jàkkarloog ñooñu ñu yedd leen waar leen indiwaat leen wan leen ni teykat wax dëgg fa yàlla guddi yenent bi la ñuy màggal ba tax na paccal ween amu fi wàll pose ongle amu fi wàll guddal greffage amu fi wàll jigéen dafa am noo xamante ni noonu la suñu borom wax ni noonu nga war a bindoo ginnaaw ba nga amee fukki at ak juróom maanaam boo majeure dañ la ne am na loo xamante ni say cër la da nga koo war a muur warul génn warul ñëpp ci war a am accès da nga koo muur waaye même bu dee muuroo ko pendant toute une année mais boo demee ba ci guddig yenant bi war a dem ne da ngay màggali fexeel nga sol li nga xamante ni su imaam ne allahu akbar da ngay mën a jóg yees lu ndànk julli te doo am benn jafe-jafe mais ñoom maam Ndiaye savon ak kilig gi nekkoon ci biir bâche bi yépp bu imaam noddoon pour ñu julli ji mënuñu dem julli ak melokaan bi ñu meloon noonu kon loolu moo lay wan ni est-ce que lii la alaaji Malick si woote ci guddi yeneen bi kaay leen ñu màggal ko lii mooy vrai dañoo gis ñi fi jot a jaar maam Abdoul Aziz démb teg nga fi benn vidéo boo xamante ni bu la ko jot bi mais tegaat ko parce que dafa am solo bu sëñ Mansour taxaw benn maire ñëw di ko jox alal mu am ay kaddu yu mu jàllale nga gis discours bi mu tenir delloowaat xelifa yàlla. wan ñu ñun ñooy ñan mais tout contrairement ak ñii nga xamante ni comme Oustaz Modou Fall taxaw di wane seeni soxla di puukarewu di ndamu que ni man damaa yor jabar ju rafet man damaa yor jabar ju taaru déedéet loolu bokkul ci guddi ci bi yemuñ si ci loolu góor ñeek jigéen ñeeg jaxasoo si baas bi nga ne leen kenn ku ci nekk ka nga dennal jógal nga akolaat ko maanaam ma góor ak jigéen bu ñu dendee mën nañ jël seeni dënn tegante ko amul benn problème nga soo faale bi déglul Modou Fall kàccapan bi caga bi lu mu waxati déglul boo ko kenn waxati oustaz nee leen oust Modou caga bi déglu leen mu tontu ñàkk jom déglul. xamal ni kër Aziz Bercy moo fa xewoon. Bercy ma di leen xamal ni kër Aziz Bercy moo fa xewoon. Bercy 2024 moom ngeen di jël. moo gën a rey ay diine de gala ak ay soirée de gala loolu dafa tuuti. lépp loo xam ne nit critiqué critiqué na ma ko ci gàmmu Aziz Ndiaye bi man de ma part maa tey bu doon suba. ma defaat ko bu def bu xewaatoon gannaaw suba laa même chose fii ak dix ans bu nu yàlla mayee fekkee tal virgule du changé ki ni nuy gàmmoo wax la leen yàlla sédde ak xol bu bon ci ngeen di dee yàlla ko waxoon yonent bi waxal ñi la bañ muutu bi xaysikum nañ dee mais du tee yaay yonent bi incha allahu rabbi at mu jot nii lay demee lu ma waaye wax man nag treize heures bu dee ku siiw nga dinaa la tontu balaa vingt deux heures di nga jot sa réponse yal na nu yàlla may fekk ak tal ñu gàmm ko at yu baree baree bari mais ma rappelé waat leen ni leen man Modou Fall maa tay li ma def asalaamaaleykum wa rahmatullah ma di leen xam nga ni kii du oustaz dañoo te dëgg yéen a ngi naan kali kali gis ngeen oustaz du def ni naan li fa amoon bersi la maa tay naan ku siiw dinaa la tontu dégg ngeen ko de caga kon xam ngeen kii buñ konee nee buñ ko nee wuyu buñ ko nee doomu xaraam sax mérité na ko parce que dafa bëgg yabaate xam ngeen ci dara ngeen baal ñu nag sama gars yi. vraiment. mais ki nekk ko défendre. dogguma la mais imagine toi réponse bi réplique bi maanaam xam nga ci diine sax bu dee da ngaa cultiver bu da naan téere yi critique nit da koy téye kenn ku ku amul ku dul nangu critique critique da laa war a avancer critique da laa war a dolli. critique dalaa war a wan lan nga manqué nga jéem a defaraat loolu mais xoolal tontu bu immature tontu bu ñàkk fayda tontu bu ñàkk yar ak ñàkk teggin bi nga xamante ni jël na ko jëmale ko te demul te tontuwul kenn nakali yow mii rek lay waxal parce que depuis ba ma yeew man ñu envoyé am vidéo ma liir ko xam naa ni démb live bi bir na ma ni àdduna yëpp seetaan nañ ko moo tax ñu ne amuñu télé. amuñu léegi léegi dooguma uhuh. maa ngi sax aada nga xam ne ndeysaan dëgg yi la ko wax fii déglul moom it lu mu wax. Sénégal yëpp jépp oustaz si eh, caga bi Maodo Fall déglul. dëkkam la nekk. déglul premier point. deuxième point oustaz Maodo Fall gis naa ko mu génn na ne xew kër Aziz Ndiaye maa tey waaw gàmmu sëñ Aziz googu bëri si la woon mais yàlla baax na ba nga ne gàmmu Abdou Aziz Ndiaye du gàmmu yonent bi rek baax na. gàmmu Aziz bu leen neexee sax na ñëpp def beeco wala taatu leen loolu yéen la. bële daal mais comme que tuddeewu leen ko guddi yonent bi rek alhamdulilah parce que yonent bi dafa seen beneen bi ci tegu mooy oustaz euh, yàlla sunu borom moo ñu digal jigéen ñi ñuy muuru. dëgg la ñuy muuru waaw yonent bi yàlla ci yonent bi la njëkkee ne ko say soxna na ni wu muuru ak say doom ak képp koo xam ne nii jullit nga na ni muuru gàmm gi foog naa bu ngeen ci jublu woon maanaam lu jëm ci yonent bi. foog naa yéen mën ngeen ne jigéen ñi bu fekkee yiwuñu hmm. mën ngeen a def ñu yiw mën ngeen ne leen ne leen hmm. képp ku ku waaj dugg ci biir tànt bi ah. fi ni màggale yonent bi la nga muuru boo muuruwul doo fi dugg hmm. su ngeen ko waxoon loolu lay demee mais déedéet xam naa loolu moo leen ci neex ay mees yuy feen ay ween yuy feeñ ah. ay patal yuy génn ah. xam naa loolu leen ci neex ngeen tuddee ko gàmmu Aziz mais nekkul guddi yonent bi loolu waaw kay ndax mënoon ngeen leen ko tere parce que yow dofoo Oustaz xam nga li yàlla digle. ak li yàlla wax bu baax ci muuraay. Ah. xam nga diine bu baax xam lislaam. waaw léegi nag boo toppee sa intérêt bopp wala luy neex nit pour la mu lay jox. Ah. kooku yow la. defatoo ngir yàlla wala yonent bi mais da ngay def pour intérêt ak xaalis. beneen bi ci tegu mooy. ñi ngi wax naan laka mucjisaatun arjazat kullal wara. Hmm. laka mucjisaatun arjazat kullal wara. kéemtaanu bi la yàlla di la ñuy waxtaanee foofu. Ah. maanaam yonent bi ay kéem kéemtaanam dépassé yëpp maanaam kéemtaan maanaam yi mu àndal nga naan ma xool la. Ah. ñaareel dafa xew a. Ah. ay ah Oustaz. laisse tomber. Oustaz nga baal ma demee. laisse tomber. war nga dellu ginnaaw de. billahi jërë ngeen jëf. salaamaaleykum. c'est-à-dire Modou Fall dafa foowul. Modou Fall moo foowul temps xam nga boo jékkee-jékkee nekk daara ja mosoo am espace pour foo parce que ba ngay nekk tout tànk lañ la jël dugal si daara ja nga màgg si nga commencé am liberté génn si ngay mën a woo yenn gel yi di dugg si ay chambre hôtel ak i kenn xamut si ngay bëgg commencé foo foowut mais bu doon nit ku foo temps booy ba mu màgg am xam-xam bi day ne au revoir milieu boobu mais moom mu ngi doog a wax bonjour milieu bi billahi Modou Fall euh, mu ngi doog a wax bonjour milieu jamono jooju nag yenn fàqmaani buujumaani suus nañu